rahmaan rahim alhamdulilahi rabil alamin asalaamualeykum monsieur général maa ngi lay nuyu bi nuyu waa Walf di nuyu sama nattaango yi nga xam ne ñoom laa ci fekk mais jël nuyo bi teg ko ci loxo coordinateur F24 mu yóbbaale ñu ñun ñëpp parce que parti yëpp mën nañ confondre ci moom ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk di leen sant waa Walfadjri di leen delloo njukkal di leen wax ni am ci kon ku ñuy rus muy yéen ruse seen bàyyi bu baax ba seex muy Sidi lamin Niass ruse leen askan wi nga xam ne ñoom ngeen nekkal ruse leen ngeen bàyyi la ngeen doon def yépp ñëw ànd ak askan wi ci héritage bi nga xam ne moom la Sidi lamin bàyyi Cheikh Bara nag moom dafa mel ni du benn nit a ko complot benn lobby la boo xam ne dañoo xamul ni jamonoy doxe ñu ni ku demul école doo xam dara mu ni moom intellectuel arabe la bu dëkk ci réew mi bokk ak ñépp comme ni ngeen ko waxee léegi bokk ak man mi bokk ak Ousmane Sonko bokk ak ñépp ñi nga xam ni ñooy nit ñu baax am sëriñ sëriñam fonk ko lool mbir mi sëriñ bu nekk wax na ci sëriñ bu nekk ñaan na ndax taxawaayu Cheikh Bara Cheikh Bara nekkul ci lenn lu ngeen koy siggee luñ koy xeebee kon du nekk wal fajri parce que bu nekkoon ci lenn buñ koy xeebee Cheikh xam nañ ci yow fu la ñu day lu sa bàyyi nanguwuloon doo ko nangu mu nekkal nag askan wi di jariñ askan wi taxawu askan wi waaye dafa am benn nit boo xam ne ku ko jege ñu seet jéem na sàkkal pexe bu tudd Ousmane Sonko ku ni moo baax ñu xoole la bët beneen ku ne jàmbaar la ñu xoolale beneen bët pourtant yàlla de noppi na te waxul kenn dara lii ñuy def naan nañ libéré Cheikh Bara dañuy sabablu rek te sabablu dañ ko sant ku nekk waaye yàlla noppi na parce que koo xam ne laa teg bët yàlla may la ngay dund ba léegi te fu la yóbbu doyalul fu la yóbbu doyalul rajo nit mu toog ñu ne day yalwaan yàlla suturaal ko mu dem ci assemblée di fa liggéey liggéey boo xam ne convaincre na ñëpp te wax naa ko benn kilifa dama ni kilifa gi man bi ma nekkee ministre 2005 mu ne ma waaw ma ni ko woolu woon nga ma te booba fekk na ma politique ba nekk ministre te booba kenn xamul fu Ousmane ko nekk kon lii mu am yàllaa ko ko may nañ ko nangu. waxuma la moom ci boppam ñiy jéem nag laay wax de ñiy jéem de fàtte ni yàlla noppi na dama ne la waxuma la moom ci boppam waaye dañ ne ku ku ne Ousmane Sonko reconnaître naa li ko yàlla def ñu faagaagal la loolu nag finalement dootul doon sa digganteeg Ousmane Sonko sa digganteeg yàlla la yéen a ngoog yàlla ngoog yéen a ngoog yàlla ngoog yéen a ngoog te nag commencement la te oustaz Assane nag war ngeen di wax nag war ngeen di dem ca diine ndax dañ ne soo rëddee su yàlla rëddee nga far mu rëddaat nga far bu yëpp ca tegoo ñetteel ba ku muy far yow miy far lay far yow miy far yow lay far mu far jeex xanaa bu la faree wax di jeex xuloo dootul am wasalaam ok ki mooy suñu fierté tàcc nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax le PDG du Walfadjri Cheikh Ahmed Tidiane Niass tàcc nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax jërëjëf waa kay asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax kaddu yu jib yëpp di jiital si nuyoo bi kilifa diine yi ak kilifa aada yi di euh, kontaan loolu ndaxte bi nu wootee macha allah mbooloo bi takku na loolu day wane ne que Walfadjri mooy la voix du peuple Walfadjri mooy la voix des sans voix tey nag tey nag euh, benn sans voix lu ñuy xeexal te sans voix boobu muy Cheikh Bara Ndiaye du sans voix bi nga xamante ne mënul boppam wala amul fu muy waxee sans voix la ndaxte pexe état bi ñu ko jàppee. dañu ne woon dañuy bàyyi euh, justice daf liggéeyam bi ko juge bi convoqué ba jox ko liberté provisoire dañu gis ne que procureur de la république dafa opposé si loolu ne lii nag état la parce que procureur de la république patron mooy ministre de la justice ministre de la justice patron mooy président de te loolu doyul tey ñu ne dañuy def sit-in si biti si buntu Walfadjri lañ ko bëggoon def waaye préfet bi ne Euh, risque de trouble à l'ordre public ma jàpp ne que ni état amee ay pouvoir ñu leen exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire ni état amee ay privilège tey su leen neexee ñu arrêté circulation bi jàpp su leen neexee jël avion te duñu fay billet et askanu Sénégal tamit noonu la amee ay droits fondamentaux nga xamante ne constitution moo ko may te bu si njëkk tey mooy liberté de manifester maanaam nga am lu la métti nga génn fësal ko wax ko ba ñëpp yëg ko loolu nag tey su ñëwee taxaw ne trouble de euh, à l'ordre public man mii di juriste loolu tey da xam ne que mënoo ko sax définir maanaam saa yoo bëggee empêcher manifester muy liberté fondamentale da ngay bind loolu rek kii de style la benn risque de trouble à l'ordre public bàyyi ko noonu. donc loolu mooy suñ premier droit nga xamante ne tey euh, xañ nañu ko deuxième droit bi ñu am tey askanu Sénégal mooy la liberté d'expression wax lépp lu nekk ci yow te loolu constitution dafa la nekk par la parole par la plume et par l'image léegi nag ñu gis nag jamono yi nii képp ku wax te li nga wax arrangé wul état li ñu lay def mooy appel à l'insurrection te appel à l'insurrection tamit nii risque de trouble à l'ordre public nekkee benn euh, fourre-tout noonu la appel à l'insurrection nekkee fourre-tout ndaxte daanaka mënoo ko définir mënoo ne lii mooy appel à l'insurrection ndaxte amul benn nit bu responsable buy taxaw ne askan wi génn leen def leen insurrection taal leen ay kii donc foofu tamit euh, problème am na ndaxte liberté liberté d'expression liberté fondamentale te Sidy Lamine Niasse fan yi pour publicité sunu site bi am na benn wax bu nu tegoon kaw bi mu téyee Mame Birame wàcc en 2016 moo ngi wax ba ne pare na samedi ñu def marche vers le palais tey si Lamine Niass si doon dund wax jooju noonu tey mënoon nañ ko qualifier d' appel à l' maanaam heure bii tey xëy na moo ngi Sib Kotaan wala pavillon spécial. loolu tey pour wax leen lan pour wax leen tey le recul démocratique du Sénégal ndaxte liberté d' expression tey sunu sunu droit le plus cher suñu alal la ñun askanu Sénégal ñetteel bi mooy bi gannaaw bi mu waxee manifester wax expression mooy la liberté de choisir le candidat de son choix liberté d'élire boobu tamit ñu gis ne nga tey le principal euh, le chef de l'opposition tey xañ nañ ko jant tey muy Ousmane Sonko tey nga xamante ne cristallisé na des millions de d'espoir tey ñoo ngi koy bëgg empêcher en tout cas prochaine élection te ma jàpp ne que élection présidentielle importance bi mu am daanaka mën nañ ko méngale coupe du monde tey coupe du monde sa équipe nationale su participé wul wala suñ ko teelee éliminé sax di nga seetaan ba final ndax lan ndax Brésil ndax lan ndax Argentine ndax lan ndax Allemagne mais tey soo nee damay def benn coupe du monde waaye Ouzbékistan mooy joué wala Bangladesh wala Afghanistan loolu moom koo mën a que du bëri dañ ko suivre allié de son côté mooy le Brésil des élections présidentielles donc participation tey droit la participation tey lu normal euh, Cheikh Bara nag mun naa ne dafa cristalliser loolu yépp muy liberté d'expression bi ñu xañ muy liberté de manifester ba si liberté d'élire le candidat de notre choix Cheikh Bara Ndiaye nag mun naa ne du du rek chroniqueur si Walfadjri Cheikh Bara Ndiaye démb la tey soo a ñëw jamonoy Sidy Lamine Niass nekkoon un partenaire fidèle ba busim tey wi Cheikh Bara Ndiaye parce que bu leen fàtte ne que médecin la day faj donc dafa doon def publicité fii si Walfadjri di dugal lu mu bon bon de a trois millions weer bu dee bu ne maa ngi wax sous le contrôle du comptable muy monsieur Faye chaque mois ba bisum tey dina fay loolu Walfadjri ba noppi chronique bi muy def si YouTube bi lu mu bon bon dina am lu toll noonu. ndaxte audience bi mu am tey daanaka euh, ay millions ngi nit ñoo koy suivre chaque semaine donc tey Cheikh Bara Ndiaye mun naa ne poumon Walfadjri la donc ñun ñii tey ñun ñooy ñun ñooy les principales victimes Walfadjri tey ñoo ñàkk ma jeexalee rek si benn point ndaxte Cheikh Bara Ndiaye tamit nitu diine la ndongol daara la te daa am benn aaya Alxuraan nga xam ne umpul kenn bu yomb bu ñëpp xam muy inna allaha laa yughayyiru maa bi qawmin xattaa yughayyiru maa bi anfusihum boobu nag su may tafsir su ma jëlee tey mu bu saas Aadi wala Oustaz Assane euh, yàlla foofu li muy wax mooy ku bëgg lu baax ma topp la si lu baax ku bëgg lu bon ma seetaan la si lu bon xattaa boobu noonu mooy lépp képp ku bëgg lu baax képp ku bëgg jàmm képp ku bëgg naataange yàlla ne mun naa la topp si loolu mais day fekk nga bëgg ko kon nag encore une fois ñoo ngi ñaan ñu libérer Cheikh Bara Ndiaye tey grève de la faim bi muy def muy moom muy Sonko muy ñeneen grève de la faim day wane ne ils sont innocents ndaxte man mosuma dégg suma gis tey benn criminel benn sàccikat benn violeur bu nu téye bu ne day mu ne day def grève de la faim grève de la faim ak xiif lu mu méttee rek day fekk ne li la teg jàpp ne loolu c'est pas normal donc tey grève de la faim boobu noonu tey doon ne nañ ko libéré place am tey mooy mu nekk si biti ñu évacuer ko mu mun a faju ñëwaat liggéeyam donc nañ libéré Cheikh Bara Ndiaye mu gën a gaawee suñ ko deful nag Sidy Lamine jox nañu ndigal mooy ñu def marche vers le palais donc dinañ continuer suñu combat. Euh, mbokk yi naa leen mbaa yéen a ngi ci jàmm yàlla ngeen ci nekk. man nag dama yaakaar ne deret la ñu tooñ deret dong moo ñu tooñ mooy ak bañ moo tooñ Cheikh Bara moo tooñ Ousmane Sonko moo tooñ El Malick moo tooñ Walfadjri dañu ne nag euh, ku fàtte la la day yomb koo xam ne da nga bokk ak moom ndab te suur lu mu am ci pouvoir xeeb ku xamul suur naa da ngay wiccax ay yoxoom loolu mooy dëgg koo xam ne ñëw nañu dénk ko euh, mu nekk directeur banque de données yàlla dogal ñu yokkal ko ci mu nekk directeur général Petersen andi ko ministre ministre énergie mine et hydraulique andi ko intérieur noppi andi ko premier ministre après président assemblée lu des président de la république jiite ñu ñëpp moo ne doyalagul ba léegi nii jël la nga xam ne moom la assemblée waroon gàll gàlloo mu fexe ba kenn waxatu fi mu ne nii CEDEAO yéen ngi dégg ñu ne Nigéria moom ngir tàbbi ci jàkkaarloog Niger dafa laaj ay député ñoom Guy Marius Sagna fii nii kan lañ laaj kenn ñun askan wi lañ waroon a laaj ñun askan wi dañoo yebal ay nit ndax dañoo nekk 17 millions 700 presque 17 millions 700 daanaka ci ay nit yebal ca Ngomplane nga luy tolloog 175 député. ñooñu di wax suñu tur suñu waree sóob sénégalais ci xeex nañ ko defee woon ci Yemen dañ ñoo war a laal laajuñu kon jël na doole ensemble ngardaajoo waaye jëlati na bu justice lu mu ko def loolu lay def xam nga man moo ci desoon bi sëñ suñu suñ sëriñ si yoon nee ngeen ma wal fajri bi ko fi tëjee dem nañ ci sëñ Muntaxa mu ñaanal leen yeewi leen dénk leen ne leen yëguma ko woon loolu wax la ba pare jàppale wal fajri jox ko alal loolu wax la kon bëgg-bëgg sëñ Muntaxa Macky Sall faalewu ko mooy la Sidi la la Idriss Seck waxoon réew yi ngeen ko dénk faalewu ci yéen ñi ngeen faale mooy suñu ay kilifa jëloon na doole yi fi nekk yépp du doyal tey ji xam nga nañ waxante dëgg li ñuy wax njort ni muy perception xam nga lan moo fi am léegi Sénégal dañ ne Sénégal amatul kilifa benn kilifa la am muy président de la République Macky Sall te doyalagul lii moo fi nekk ñun nag wallaay ay góor lañ dañuy wëy di bañ bu fekkee ne kaso rek moom la ñuy réserver wallaahi ragaluñu ko man jàpp naa ne keneen ana ci ciy topp la ñuy wax bientôt mën naa am ñu ne Saa Wolof na nit ñëpp xam ne Saa Wolof du du wax lu ñaaw du ko def waaye dëkk fu ko fekk fa la koy baax dañuy lànk Cheikh Bara lan moo ko jàpp koo xam ne yaa ngi ko jàpp ci këram toroxal ko jëfandikoo benn ordre illégal ordre illégal boobu nga jox suñu ay takk der def loo leen lu dul yoon ñu tëj ko waa jaaraama Juan Branco parce que wan nañu li nga xam ne moo nëbbu woon mooy wane ne ñun nekkuñ ci état de droit loolu la Juan Branco wax képp koo xam ne yaa ngi miin samay vidéo dégg nga bi ma laajee ci Juan dama ne bu jaaroon buntu présidence buñ ko jàpp far Mauritanie di jaay ak ba jàppal ñu ko wane ne moom ñoo ñu ëpp sécurité andil ñu ko li ko saa jow doon wax ne naar ne yaa xay si waa na ngi nii ñu ne ko du moom mu ne wallaay la moom la lan moo fi man ma waxaat leen ne xuwaan pomme terre bu tàng la lex ba ko njëkkee du ko mujjee fu mu tag ci put gi soit mu dem ci biir bi teppi ko wala ñu gëqaat ko gëqaat dong nag mooy solution jàpp delloo lañ man jàpp lañ delloo amul leneen mooy ñun lañ yàpp mere mag ñi duma ko nañ xam nga dañ ne woon Abdoulaye Wade xar la ci biir Sénégal ngay ne ci biti le contraire lañ fii kenn dox bi xam nga lan mooy wax ji mooy fipp yéen Sénégalais yëpp yéen suñu yaay yéen nga xam ne yéenay doxee dox jaay doole ji ak jaam gii ñi ñu teg commençant par yéen bés bu ñu jàppoon bés ñun ñëpp ñu wàccandoo ne duñu dellu suñu kër fekk Macky Sall abal ñu teg teg ñu ci yoon kenn du rey kenn kenn du jiite kenn kenn du jiite grenade lacrymogène grenade lacrymogène dafa seer kenn du ko tiire ñooñu ñu ñun ñoo leen war ñëpp taxaw jaay suñu bakkan bañ résister nag laa wax résistance constitutionnelle suñu constitution ndayu àtte ji moo ñu ko jox te ndayu àtte ji moo tiim Macky tiim ñu suñu institution yi ñu naan dañ ciy jeté des discrédit xam nga ñoo ñoo ciy jeté des discrédit les autorités yi koy incarné ñoo koy saaga parce que ñooy wax lu lu dëgg ñooy ñëw ne la tabaxal naa la benn arrêt 8 milliards 32 euh, milliards fekk dañoo sàcc 24 milliards rek ambassadeur si ñëw ne 8 milliards laa ko maye loolu du càcc moo tax ñuy yokk soble soble rek lañ yokk ko dee yokku leen lan ngeen gis gisagu ngeen tàggoo wu nekk fii Sidi Lamine nee na ngeen am jàmm ñu ngi leen ñu jiite te waxu Sidi Lamine duñ caaxaan jërëjëf